dañ koy waxtaanee parce que dafa dañ ko boole ak thème bi nga xam ne au niveau national ci Sénégal moom la ñu jël ci mois de mars bi ak international ñu jël nag xool naka lañ koy adapté ñun ak suñu réalité ministère looloo tax ñu ne nañu waxtaan ci jigéen yi ak euh, seen euh, taxawaay ci développement bi ci gox-goxaan yi naka la internet bi ak numérique bi mun leen ci jàppale. donc boo weesoo li nga xam ne njëriñ la ci euh, ñoom donc ñëpp xam nañ ne internet mun na leen jàppale ci bëri mais aussi war nañ leen gën a ñaaxaat pour ñu def attention ci lépp li nga xam ne mun na indi ay loraange. parce que plan Sénégal émergent boo xoolee document boobu nga xam ne ñun moom moo ñuy euh, guider pour ñu egg ci développement dafa ne capital humain maanaam nit ki naka moom ci boppam euh, valeur la richesse la ba nga xam ne mën na egg egg tax Sénégal jëm kanam ci nit kooku noonu boo xoolee Sénégal jigéen